mission boobu noonu mu am ay représentant moom le président de la république le préfet il assure le commandement territorial gis nga moo tax may la sànq état organisation la affaire bi du ay pëccëxoo du question da jóg rek wax lu la neex wala def lu la neex nit ñaa ngi fii wax suba ba ngoon ba géex kenn du leen woo. ba léegi waxoo ba loolee du la sécurisation maa ngi ñëw ci suba xam nga je te parle de mission xam nga loo gis rek da nga koy jëli indi ko mais dina cëpp da lay da koy jëli indi ko je parle de mission de l'État la mission de l'État primaire première ak ah, j'allais dire c'est la garantie de la sécurité des personnes et des biens maintenir l'ordre public waaye déglul yow. lañ gis tournée yow jaañ solution nga bëgg a indi nga bëgg a taal bi ngeen wax ni ñëpp xam mais tournée non tournée yow tournée président de la république yow tournée président de la république pour régler question wu question wu dëkk bi ngay tëkkaleeg seen. seen seen seen non dama ne. affaire yi Bourdain gis nañ ko ñuy dàqe ay nit xam nga xam nga suba gis nga suba gis nga suba. l' prendra ses responsabilités. fa laa bëgg a ñëw. Mhm. parce que mission la président de la république yor. effectivement la mission première. du pour président de la république. pour ñëpp nag c'est de garantir la sécurité des. pour personnes et des biens. ordre public bi fi am. Mhm. kenn du ko perturber. Mm-hmm. kenn du ko perturber l'état non pas de ñun pas de ñun man man man du ma ci prononcer mobilisation bi ñu woote moo tax ma ne il faut ñu faire la part des choses euh, Aïcha non non dégg non y l'état man man depuis sànq je te pose je t'ai posé une question directe c'est-à-dire je demande je dis rien maa ngi ñëw xam nga dafa am loo xam ne état bi moo koy doxal muy la sécurité des personnes et des biens loolu c'est l'état maintenant xam nga ñoom dañuy politique affaire di ci wax. xam nga ñoom dañuy politique non non non comme c'est l'état bàyyi l'état doxal. moo tax ma il faut ma expliquer il faut faire la part des choses xam nga ñoom dañu doon parti mais yoruñu état diriger wuñu état ñun nag dañu yor parti ba pare diriger état moo tax ma la il faut ñu def la part des choses. Mm-hmm. moo tax parti il faut ñu def la part des choses. Mm-hmm. léegi nag yéen ñi leen di tontu mooy le parti. ah non non non. c'est le parti. non non non on a un parti. boo xam ne day dund. non non non affaire deewul. la coalition Benno Bokk Yaakaar deewul mu ngi dund. non non non. ñu koy dundal ñu ngi koy dundal donc ñun on va faire face. alors Pape. on fera face. voilà le le le le discours irresponsable. voilà un euh, discours euh, irresponsable. parce ah que yow mënoo am am police. am gendarmerie am ne je vais faire face à non xam nga faire face xam nga xam nga li laa lay wax. faire face laisse-moi éclaircir faire face c'est pas dem taxaw yor xeer di sànni teg non non y a y a y a y a un travail. xam nga xam nga wax naa sànq ne parti bi am na instance yoo xam ne day def propagande. nous avons des instances yoo xamante ne nii nous sommes en train di dugg ci dëkk bi. alors xool li ngeen nar. d'accord tel ah li ngeen nar. lan lañ nar ah yéen ngeen ne da ngeen di manifester. waaw seen leader bu nekk 45 46 départements yi pour ah, wuy ji moo gën. da leen a gis nga ay Sonko fa juum juumul de dafay day sos di wax lu amul. ñiy juumul ca kër juumul moo ko tay tey lu day wax lu ko wóorul. di wax lu amul amul parce que juumul. moo ko tey il a fait a d'accuser nit ñi sans preuve. on se calme on se calme Ndiaye on se calme alors on enchaîne rapidement avec Pape la dernière question. il faut qu'on appelle le chat. s'il vous plaît s'il vous plaît on se calme s'il vous plaît. alors ñi la fi def ci 94 milliards yi di tuumaal jàmbur jàmbur papay jàmbur doomu jàmbur euh. am famille nga koy tuumaal kat nga xam ne yow yaa ci bëggoon la ngaamu far affaire yi ñu la ah mais mais loolu nag of naa wax mais mais wax naa jox na ko dëgg mais mais mais mais mais ma ah. déglu mais mais kii grand grand grand mais mais xam nga